maa ngi déglu audio yi nag waaye nag il faut ngeen xam benn affaire audio yi yëpp déglu naa mais maanaam dafa mel ni am na si ñoo xamante ni dañuy dañuy dañuy laal nit ki dañuy touché maanaam sensibilité nit ki Sénégal fii ñu xam ko ñu bañ ko ñu ñàkk koo xam yëpp Sénégal ñun fii dañoo gëm tarixa dañoo gëm tarixa bu dee doo bu dee bu dee jullit nga nga nekk Sénégal soit Tijaan nga wala Murit wala Xaadir wala Layen ba leneen leneen maanaam ñun dayo gëm tarixa chrétien yi nag ñoom seen kii à part waaye ñun dañoo gëm tarixa yéen nag mënoo nekk fii Sénégal gii ñenn ñi dëkk Touba ba pare ñu génn ay xooma la yàlla laa gëm yonent bi képp laa gëm maa ñoom kese laa yaakaar loolu du yoon ngeen xam ko ngeen ñàkk koo xam ñoom seen Touba tiim seen baay tiim seen ndey yéen seen sarat ndey. amul lu muy tuub sëñ bi amul lu muy tuub lenn du ko tuub parce que nitu yàlla la du juum yaa ngi comprendre kuy juum nag kooku moom mooy tuuba ki lii di rëccu. sëy wàllum soxna sëñ bi musta sox sëkk ak benn soxna day jël xaatim bindal la nga dem naan wasin ku yaakaar ne moom am na temps di jëf jëfandikoo comme ni ngeen koy jëfandikoo da ngeen di nax seen bopp seen bopp koo xamee ne kaasu kaasu ataaya du ko weesu ci lekk kooku yow nan lay jubloo li ngeen jublu bàyyi leen di wax loo xamee ne barke alxuraanu karim dara du ci dëgg ku gëm nag li ngay gëm nga gëm ko mais loolu moo am du juum du jaawale suñ borom moo koy xamal direct nit nag boo demee ba nga xamee ne borom mënu laa xamal ah te muy xamal sa borom faaw nga soxor faaw nga iñaanee loolu mënoo ko bañ da nga koy bañ ndax da nga naan amul Cheikh Omar Diagne mbind sëñ Touba bi muy wax da ko gëstu da ko xool dafa xam da da wallahi azim xamul sax luñ fa wax moom nee na du mburit xamul tarax mburit xamul ci dara kon moom bu taxee noonu di wax Ah, kon kooku c'est un ignorant c'est ni nag loo am xam-xam xam-xam booy wax dara danga koy xam ba pare ah, bu ko defee nga mën ci wax. dama ne mënoo leen ci dara suñu sëriñ yi nii nii ñoom la ñuy topp àdduna ak àllaaxira bu yaboo ñu dugg safara ànd ak ñoom. sën Tuubaa nduroo gi bind moo tax ñun ñu yab ko ni nga yàlla bindee ak ñun moo tax ñu yab ko mais xamoo leen sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa du nit loolu dañ kaa war a nangu du nit. li mu bind lépp baax fi ak lim sañ a wax taxaw moom moom kese sañ koo wax dénkaane ak boromam ak àdduna bi mu sosoo léegi kan moo fi sañoon taxaw na kan moo fi sañoon sañ taxaw wax li mu wax waaye yow sëñ loolu ku yàlla mayul du ko wax te yéen soxor ngeen yéen sëñ bu leen xoolee lim defal lépp lim defal àdduna lépp ak waa Sénégal xam ngeen war ngeen boo leen si seen boo leen dijjee seen xel xam nga ni kii yaa quelque chose am na lu nekk si ginnaawam yéen dinañ xalaat. ndeysaan philosophie barki Serigne Touba philosophie nag te maanaam lu baax la lu baax a baax a baax mooy philosophie nee dafa am ay ignorant yoo xam ne maanaam ñoom nanguwuñu xamuñu te ñoom duñ mës a nangu ne xamuñu <laughs> waaw bu la neexee nga wax lu la neex <laughs> waaye waaye tey jii de suñ Touba moom ki nga xam ne daal liggéeyal suñ borom ba suñ boroom jël kaaba gi copier ko def ko ñaari andil ko ko Touba mu féete fa ba abadan mu bind ko si xaatimul munaajaati bil xaq ne ne tabaraka wa taala ana beytillahi xaram tarfatu ila tuba wa fii rasulillahi salallahu taala alayhi wa kaaba ga suñu borom jëloo ko copier ko ñaari yónni jibril mu indil ma ko fii tuba ku si tuba mel ne da ngaa aj màkk mu bind ko si téere bu ne kafaaniyal baaqi alma maata sarmada boobu baqaayi yashuru ahmada man Serigne Touba nekkuma kuy génn àdduna ne natt ya nga xam ne suñ borom moom moo ko tegoon ak ak yow ya ya nga ne moom moom moom moom suñ borom moom ko tegoon ba pare man suñ borom dafa jël ci jëmmam sàkk masim ak jëmmi rasulillah man sàkk masim man borom Touba li ma leen wax nag niveau la mënoon leen kaa xam na foo foo leen foo leen jaar di ngeen loolu yéen la rek parce que bi mu koy bind sax si biir xaat tarjumaan bu leen ko tekk fu murid nekkul wax na aussi bu leen ko teg fu murit nekkul ndax boo leen ko tegee fu murit nekkul dina teggi sama wax ji yëpp te ku teggi sama wax ji moom nii ah ni nga jëm <laughs> gis naa gis naa julli yoo xam ne dañoo dara li liñ doon wax naan julli dina jaamu yàlla buy bëgg dee dee dem sawara gis naa ay julli yu bëree bëree bëri bëri yu nar a dem sawara ngir kat ngir maanaam tooñ guñ doon tooñ seen jubaa wala weddi guñ ko doon weddi billaahi wallaahi taala fii seen jubaa fi ne moom la ñuy topp daayiman abadan bu buñ demoon ba yol ma xiyaam mu neen dañoo leen doon naxakaay sawara la ñuy dem ñun dañuy topp dem sawara parce que Serigne Saliou Mbacke fii na ngeen baax sax te bu bu yol ma xiyaamee nit suñ dufaa dafa neen kenn du fa du fa ñëwee kenn xam naa ni non si yéen gi doole la njëkkal sëñ Tuubaa ko taxaw naan yaamaalikal mulki man jalla na xewdi irham jami al wara yaxaadi yan rara yàlla jégalal doomu aadama yëpp képp ku amul rek jégal ko yóbbu ko àjjana yow dem ba lay ñaanal loolu xanaa nga mun ka war a mën a delloo njukkal yéen a soxor yéen a iñaan <laughs> am naa daal sama dernier cadre moo nekk nii l'essentiel daal ñu Sëñ Tuubaa lañ bëgg yonent bi lañ toog ah mooy jëmale si yàlla l'essentiel daal jërëjëf Sëñ Tuubaa jërëjëf Sëñ Tuubaa yaa ñu may tranquillité yaa may lépp lu am si àdduna lépp lu ñu am si àdduna Sëñ Tuubaa moo ñu ko may. jamono ji bul woon Sëñ Tuubaa kon yéen ñii di wax nii amul kenn ku si tudd ay Souleymane ak Assane ak ay yéen ñëpp ay Jean ak Paul ak ay Vincent ngeen tudd ndax tubaab bi lu mu bëggoon amoon tey jii defe naa ne Sénégal du mel mu mel adduna sax laa wax du mel nii mu mel daal ñi ngeen ñi ngeen jël def leen seen maam ci diine wala seen baay ci diine euh, ginnaaw saxaaba yi laa wax nag ñooñu noonu Sëñ Tuubaa mbindum Sëñ Tuubaa da leen a yéem sàkkantuma ak yéen di wax nii amul dara lu ma wax ak yéen fi mu nii.